mbokki internet yi jërë ngeen jëf si ànd bi ngeen ànd ak ñun fii si seen chaîne YouTube seen acti TV tey nag di talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru août atum 2022 nañ ñëw génn ci li gën a xibaar yi xibaar yi tey dinañ ko door ak njiitu réewub Sénégal ginnaaw ba mu demee foofee ca Mali ngir gisante ak mbokku président bu réew boobee moom nag Macky Sall ji njiitu réewub Sénégal mi ngi xam le ni tànk jàmm moo ko tax a te li koy teel mooy diggante ñaari réew yi ratax ba mën a def ay essence tey nag di bésub feet ci ñii di chrétiens yi muy 15 août sax wala sax ñu naan ko Assomption feetu nañu ko fii ci Sénégal ba jot amal seen messe producteur bu mag bi di Papis Nia amal na ab sargal jëmale ko ci docteur Massamba Gueye njukkal bi di citoyen d'honneur bi jóge ci collectif d'artistes yi jëm ci docteur boobee ñu ngi rafetlu bu baax a baax taxawaay bu docteur Massamba Gueye am fii ci askanub Sénégal rawatina nag ñàngale gi ak fësal gi muy fësal aaday réew mi coow hôpital Le Dantec day wéy ginnaaw ba kii di directeur hôpital boobe di Babacar Thiandoum mi ngi xamle rek nañ bañ a yedu mbir yi nag lii di hôpital boobe di hôpital Le Dantec dafa soxla ab laat jumtukaay yu yees yi ba du ñu duñu jéggaani benn yoon ci yeneen réew di fa faju jee atum ren bi yëngu-yëngu yi am si école bu Sénégal doyoon na waar waaye nag mel na ni résultat yu ñu jot ci examen yi am fii ci senegal am na ab yokk yokkute bu baax a baax waa SAEMS nag ñi ngi xam ne ni li ni mel yokkute salaire wu jàngalekat yi moo ko waral ndax def nañu seen kémt lay kàttan ba ndaw ñi ñi si ëpp si ñoom am lii di seen examen li ni mel nag mi ngi xewee foofii ci Linguère ginnaaw ba ñaari sàmbkat jotee fa ab jàppante ba kenn ci ñoom rey moroomam foofee ci ngiic Alassane Sangor nag faat na Ousmane Ba ba mu ko jàppee dur ko ay ba mu jaaree fa ñàkk ca bakkanam ba tey ci coowal législatif législatives yi ak ki nga xam ne moo di nit dof yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci Pape Djibril Fall nit dof nak nee na lu mu mënul comprendre mooy doxalin bu njiitu serviteur bi euh, di Pape Djibril Fall bëgg jël ci diggante opposition bi. am tey nag naroon na am bakkan bu ci rot bu arbitre bi jotul woon àddu sip bile combat doxoon ci diggante bébé xarañ ak yaa Moussa ginnaaw ba ko bébé xarañ dóore ab coup ba mu kaawoo 15 août nag ko dee yeggee xel day dem ci sëtëb El Hadj Malick si bii di sëriñ Mansour si dipp méngoo ak gane si àddunaam tamit di sët bu njëkk ci El Hadj Malick si te di nekk premier xalif bu tijaan boobee tey nag jotoon nañ ko sargal foofee ca Tiwaawan yi nag dinañ ko ndar keppeel foofee ca Kolda ginnaaw ba njiitu réew mi rafetluwee bu baax a baax li nga xam ne moo di liggéeyu eaux et forêts ndax ba ñu saytoo àllu Kolda boobee nag dagg garab yi ñu fa doon def mi ngi wàññeeku bu baax a baax bokki internetu seen ak acti tv tey nag li leen leen indiloon ci di gën fës di xibaar yi di leen wax ni rek woy leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche bi pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen information ci seen chaîne youtube seen ci tv